mbokk naka la naka la la yàlla di xoolee journée boo xam ne dafa romb waaye ubbiwuloo ci alquran subhanallah ñaata ci ay góor ak ay jigéen journée lëmb nga nekk magum jëmm mu nekk père de famille wala maire de famille ñaata waxtu la lay jëlal mooy booy dem marché dem ñëwaat ñaata waxtu la lay jëlal booy dem xew ñaata waxtu la lay jëlal booy dem sa say programme ay heure ak ay heure la lay jëlal waaye alquran jël joxuloo ko cinq minutes joxuloo ko dix minutes joxuloo ko un quart d'heure quinze minutes naka la journée boobu di romb nga yeewu yàlla may la nga yeewu ci jàmm ba ngay tëddaat fekk ubbiwuloo alquran subhanallah ubbiwuloo alquran am ñoo xam ne ay bés day romb ay semaine day romb wéyjur papa ak yaay fekk duñu ubbi alquran mbokk yi li dafa lii dafa doy waar wallahi lii dafa tiitlu alquran mooy leeruk bàmmeel alquran mooy mujj bu rafet waaye alquran mooy texe bés penc naam ndax yërmande la te nag faj ci bépp feebar naam waaye rawatina feebaru xol boo xamante ni moom moon nar a yóbbu nit ñi safara wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahma naam yërmande la yàlla na yàlla dugal ñu aljanna kon jëlal alquran nga jàng ko même bu dee cinq minutes même bu dee dix minutes waaye bu journée romb te ubbiwuloo alxuraan te nekkulook leer ndax di nga ko soxla sa biir bàmmeel